Bienvenue sur Salam Vision. bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaam yàlla bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaam yàlla. asalaamaaleykum mbokkaas yi boobu ziar du kañ jaabi jën rafetluwee jeetaay wuti wona kaɓɓeɗe émission no jayrina woyse aruna sen jentel mara bon contanede lol tamit remercier de acceptani émission ni voilà legi ɓoyingaɗe ɓoɓiɗi en direct jaaɓiɗi setan mo ɓoye pour poser quelques questions tamit ya jentel mara jentel mara a cambohna ayayande yababamde atumna parel nde woti pote kusojantalma inde jamdal ceɗɗa hoyde woti pour ko ɓayde bomi jenina yajantal mara vraiment bomi contane ñep rafetɗo e jeetaji rafetɗo e yaade kaduji no conseil ji bomi contane ngalu voilà bo commencé émission ni jantal bomi jarɗa oui eɗeɗo jarɓa Euh, kanye na halala bi seetaan émission mm-hmm. ne wona ina halala demi fiin ko saafen fiin ko sénégal wuyi jaar do waax ne waax kanye lu jeet mais après tout yooyu continuer politique lalamane anda bere combat aren buñ nin cem ba bu ñu xam zabe ndax na on yalla na bi cem na de deme na legi lambani wa edele lambani ya mere de bay ya mere de mot po fere da ngi fi wane rek lamba oti ni waaw profito ya tamit ko ñu fo lamba rere jabu me won na ba lamba oti be ma won na ba profito ya ngurme sekundur ma sekundur sa frontière vraiment woto kriri ngole bara hambul to ngam na ba nak narake ye te ko be do ko na na raki ko ma kata ne bar vraiment ini na ngana no mere mi yona ngana ti ki ngo ala am ran dan ngo ma nga mar su suara lam lam na sabi am ran dan ngo mar ki mar ki da ba na ba ti wi mi mo wala na jara wal mi ni da ba wala kon la mar ki ko waaw comme bi ci foofu waxee fa lebar lebari bi ma lebare mais mais lebar xam nga yow ni ma am dubu dubu ni ala ala fa fe bi ci soni mais kat kat o jojoti ngo na tay ngo onis do ko ne lebar ini waaw wi ɗo ɗoina wima lebere ɓe lebere ɓeɓe ɓuuɗe wima lebere ɓe lebere ɗo komabaji gum ɗon ara ina haɓiɗe affaire uji ñamɗe hay layaɗano jen kaka ɗaɓɗoɗa ɓeɓeji que wa eɓe watafuata vonka poonekane weneen ki métier professionnel na woti waaw xam nga doomu adama yanga def ini fa gañe ni ini fa raage eh, walu maarani tikte xana gañe dakko nga yori dara me ko fatirel do bo dara woti wori a maarani ini tax ndinga am ko boci parce ba bay laaj ko lay ci ilahlana ca wàllu ubbi daal ha boo nag dimbalee boobu ini woo de ko ne daal boo foofu nga pour boo dimbalee boobu dimbalee tamit daana fe ɗeɗo haalis me raa ilahlana ee bakko ko pour na pour ay yefne sasan alzim heɓ ba kon man nag ini woo de pour boo dimbalee boobu rek voilà jërëjëf boo doon ni nga dimbalee boobu maanaam a paje gentleman waaw indi ci mën a paje vraiment ca laay ndax wuraaki ay kaaji nangaana bo bo fi un mois quinze jours mu daal waɗaɗa ɗen nemone tan kaɗa marga jantal maɗa bo ɓoyɗoytiraki seɗe neme ɗeɗi question ni wewe heyndi vraiment woɗina araka ɓoye araki probléme ammaso ko hoyinakana dara wujji ɗe a heye wewe hey woɗina trois jours ko mahgaɗa fayi amin maso ɗi kena inin na nango dewi dikera nango dan telela nende bodo kina ngana pajin bodo yang ngana di meta bedu abo abo kan ko milian eh inji wajja neng minda sangi ini wajja nango dewi ini bo jaga ko wala diwi ay tam nango diwi ay tam nango ni eh wada demena legi gentleman ak don don pajin pay baga mi de wala yaay ni waaw xam nga comme mbir foo rek ko di bagura ini ko wonne mere ko yalla ko yi ma de amin daa ini ko wonne de tewoɗini koye manginten mais ala ke ƴina hagana en tingo ƴina hagana jiwo ha fofo rakki ƴina hagana deɓe maye kadi baati gestu nda fawode o a jangloye continue a jange eyi léegi wotiɗe woti léegi bo est ce que min ɓollimi intima paƴe osaytima paƴe pour ɓoobi bamin partie ɗum émission ne kera hatara bamin paƴe gaɗa a tindi kosaytima o ɓe paƴe Mbaye ah, comme mm. fi ni nga doon rek. Mm. Euh, euh, Mansour Ndour Sora. ñuy mm. gërëm di tamit. na taxa ay dara ɓe naaki inci nangana naaki siji bo tam tikano paj ba bay ara kaci nangana ka dox ni war ni nangana ɓe fo jara ak problème numérique kamini dara min daga in weyni awagana numérique ka pañoyana bonima pañoyo 25 mai nekana din 3 jours manam mémorie émeri upi toujours ñu ngi ci naxalaala ma paje lata teew rek fumarab kiti fifo ɗenen koñenen ema wawen men na paje émeri quand même kiti ma paje émeri wina naxalaala windede ko minirigo wi sama yaay ah, boy sama yaay boy wi wina naxalaala comme ça faagee ne ay combine benn nañ jam la maanaam faagee ne ay affaire combine benn mm-hmm. wala fax ay problème ko indi jam waa bañe yoo bañ wii nag laa la wii bind ca na kaj mm-hmm. ca na kaj wii yoo wàllu problème comme ça ngóora yaari nag laa la faagee ne dali kafu wii faagee ne vraiment ay wajab baay mm-hmm. wii nag laa la wii wii yoo pour di dicci wii di dicci wala la as as mo nit wemo pour inem te ci tamit. pour que tamit ñu am. wópp ñu dem wii tamit wii ko bayre bayre ñu naan bayre VIP wii tamit pour mën a ci. wii pour comme ça rapide ci naan fu ñu ne la ba sandiri rafa wala fiji ni cha sabazamsi wakulini vile hano vidudu tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete 위로다가 기록도 미스키리 왜냐면 아빠지 기록도 미스키 에머리 에머리 기나 하라 하라 기니 몰라 하라 이제 메가 나 파지요 위 카파 위 위로풀 오풀 자리 나가라 awalan na wala wala wa na awalan nila babato igene me on ma sa mo ma wala abe ci nga bu ci na ngana to min mi wo min ci na ngana da demela ki di ci mo ci jara ki solo kon jaami gentleman raya ɗen ɗo tetti ɗiɗitinde expliqué ca findica paño he legi ɓore ɗemna hamna après bo ɓe jen ɓe ya gentleman mara ɓo to ɓe publicité ngari inchallah comme ça jaaɓe jen minen atat ɗiɗiti par ce que ñinina bo ɓe jennawtete ca boko defeɓe ɗo kororon kuru ndem ɗoɗo pinkulonde rakkine hammande no wiye jendele mara apaƴen kiɗitem kece oɗo rakice hammande no i paƴosa ɓaɗina kiɗitem no comme joni gohono raki taɗaɗana wiris taɗaɗana ɓoɓe bacce tiɗiɗi ke fotti tiɗiɗi hana cay composé babak tiɗiɗi hanana ɓo composatana gañce hengu womo haɓitaca tiɗiɗi hanana ɗeɗiraki bele efo secondaire mbaɗ orarak solon ginin jam fof ena hakkille fay koɓolen inninaam ini inninaam an fawa oyenem quoi te fumar kittira ngal ko ha jamana kaj jamana kaj fane waɗa feeraki probléme probléme aérien wafaje paƴ ay ndehum siɗi feera ay probléme commune siɗi wafaje je paƴ quoi fatiment général tumi wafaje paƴ jamana kaci cemom cagaki lolol surtout ciamantene ɓiti yaɓɓiminala kuɓu na jaƴamantene ngoranoa wanda amanna amanna ɓe amantani ko wurwanima pour baɗat ko yoɓi jamtaki solo wala ko joni fo hakkil incina halana ɗumit ko joni fo ɓoɗon hakkil ɓenni ma ɓenni kaye na halana kaye faana rakka kam mo dawa ɗumde fe rakku wiimo ɓe kumoza bo ɗeɓɓe ni inaɗahalana ɓola plis kotoni kinde ahaɗaɗa haɓe même pas ay cinq minute dix minute ala ko uwo rake inahalana comme ça komaji inahalana koɓe o fano ko aɗɗiɗiɗi bagoge ɓamɗe ɗiɗi rake produit inahalana fumma man firirena plisɗa fano ɓe ɓeɗe ɗiɓe ɓeɗe hejiste jam tojinga plisé ma pouye wawa wongaɗana kidigi ine wa haɓɗeɗa wa wa innanaɓe minana haɓe motiɗaɗa kaane kaan kaani min wona wayiyaɗaɗa aare ɗaɗaar walla pourri walla eɗuɗo eɗuɗu walla jentelmara e wawi dafte mais o manɗeɗe an o manɗeɗe an mais ɓen tiɗata hanata cikkinjoji ñamata kaɓeɗa te wonata jogiɗata sa waye hen fofte walla wala famɗiɗiɗi cumɗa waye fofte cumɗa nana wala cowɗi amminina raka inna foftoɗaɗa few mina hambi alal macha allah léegi ñoote ay daaw mi di ay digg wiir yi xamante ne ci ay xob cium ci ay niir cium ci ay fax ne dañ ci xamante ne mooy loolu daal léegi ca ca ca ca bu yeex waaw comme ñu ne foofu daal ci luñ ci ca moom mm-hmm. ah, ca ma bagage mm-hmm. ko ci dingam indi ko allah boobu bi kontaanee da léegi bi bokkuloon na ki di ciyawante ne ca ki di du reen ca di mu ta ca cem caapajee tetinina ci saf si optinen cem waaw tanaaki ci yonahaana kumpife fo cuja paƴe ay ndowum sidi mais ñoɗo ɗowum sidi cuɓonona pade cum caɗiki ay renti cum cillangal bo ceeɗoɗe ko hakke ko watte mujiɗiga quoi machallah léegi justement avec des activités waat nafti activité amatene waɗiɗa naftu wawa comme ɗum activité ɗe nanagal ɗum ko ɗiɗiɓe nanagal waɗo sport wala activité ɗe wonten huppiɗo wadda weere huppa wonko activité activité ɗe nanagal ɗum waɗ dans les temps waɗi kelewer mais ala nate wuti ni ko wi football ɓe mbuɓat activité ji football football wonino marsibo wamde football nayeɗam ɓe mbuɓat wodi wodi alerte ɗe quoi fof ko pavonka ene tax ɗum mo pavonka o terol teran quoi eyi o terol teran enen hannde ɓe football nayeɗam ke kerole wodi no nayeɗam ɓe raison ɓe yo ndemdal kono dans ce cas wetta ɓoɓe wona a mawtere ami équipe fo ɓay équipe partout fi fep fo ɓay équipe yaaɓi yeyde waake pour newe tati fo ɓaye paaviki équipe toɓa junga naɗa ɓayewa fo aƴe nana équipe toɓoñi waaw comme mini fo rek premier ASC toɓoñ baa fo ASC toɓoña feɗi fadi président Ousmane Diallo fo Ousmane Diallo e Elas bi moom jaabe nga nga be ay seeto bañ tu bi yibu kon lu fe ba kërme ndax euh, wuti ni ko bi mi abo ay épité ay tamba ay bakel ke dik Sénégal bu kenga e euh, pikin to bañ dinga boy di amé nga boy amé nga côté xamam ngu boy amé nga ina na ngale ko dégané ko walu finance boy po final a ñaka finali ba tuubee ba ñàkk finaal yi waaw min ni tudd dara lu lu kontaan moom miskit mais nag sante ko wax na waa ndaw waa gaawiri mara kucco entraîné perenge foti kupci mara fofi da mara kadi tuuji ila dana kupci ila dana ci tuuji ma ja hay kon fubal final ligi kooku xajjaada may sante koox ñinana koox a dogali den ñinana koox anna mooda mais mais kono ina gara figi tobañ dik tobañ fa dige dik tobañ fo am fo moy tu violence mi e do rendez-vous ina gara na ko ba nga na mm-hmm. final inshallah dem te ñu ngi toobañ kukub. incha allah eh. jërëjëf taw. Mara boo kontaanee la. léegi am na euh, caractère gënal la la addinaa ne euh, wuti wuti moo tax caractère la mante ne laxaɗi tinagana duma adama futikanga fof fitini fo fay jangal mara hakki fininagana menano peso te on tiksi arona hakki fininagana menano peso on tiksi tu hakki ininagana menano peso on jego jangal mara kono jangal mara haɓe droit haɓe erreur jangal mara ay kere mo woni ininagana basé ɗe a muña futoñu fof inana moƴƴitoñu muñ ndax o ko a denkaɗa hamamna kana heño kana paƴo ayru fay toñ a cuɓinana diwi a tuuɗi mais fo muña min gëm enen caractére rigdi hano iñon raf ina hati keɓe ɓe ke kottinda fina hati keɓe fréquenté min gëm enen a wiña caractére men ɓe wat changé gaɗa caractére ina halaɗo en wat changé gaso ina ina halana tamit menen déggu ga teɓɗi ke ina halano in mbahaɗiɗa mi min kurkiɗum pour mi joginirem wona ina halaala deɓe men ta haɓi ina halaano nefɗa waɗi inem dego ina halaano ɓe waasi ina halaano ɓe waasi machallah maraji solo ɓo kontaade dabawano ba bo weɗen émission ni tasa so yaɓɓillay vraiment ɓo rakkilirninga leydi yo ɓolonen préfére to adunɗo hena jawtini adege ko jawtinena winen fandata waaw comme ni fo rek jabo di ngon kubu ci ngon da jabat ci ngon di kalando mm-hmm. euh, ini ngum kubu ci ngon de wazi na ngana we wazi na ngana we wazi gedi wasa da da musi mi ngum anda da go ki ki ngana ngana kubu ti mm-hmm. tayungo mm-hmm. ti mbitiɗoy mbayyeɗe wi'ere ina haala ka jannga présent mbayyeɗe muñjede mbeɗeɗe intala ha jannga ine wi'ma waɗ peso ɓuuci ko ina haala ko oh miniɗaɗa ina haala rakeɗe asɗeɓoɗeɗa mbeɗe ɓe ki alhoran wacci alhoran ine ina haala weɗ visione ngo weɗ gëm gëmi ngo ina haala wema kimi o yalla o amad ɗum ine ine wonaki solo tamit ah, ah, jaabiten yi awayne nasin keeyi ɗi rafetlu émission ni ɗi contane tamit ɗi kañƴaɗade passage vraiment moving at all. Um, I want to dig it on you cook. Legi was a kicking kupem. Legi never touch everyone yet. I say to no tamit. That I say is by and the alcohol. Voila. Wow, my young community for it. Put away ASC ci biir ñu ngi jéggi nit ba. Mm. du comprendre loolu mm. tamit ndax mm. euh, kenn tooñ ndax jéeg ko arab wa tamit ñu ne limaa ni waat ko wax gëm ko wax kon waat ko ñëw nga wax wax gëm ko wax. Euh, ay ASC ci naxalaan tout ba dégg zone yi. mi ziar mi kañ du. boo nee naxalaan la mi jéggalu la ndax intention nu ngo tooñ wa intention nu ngo wera mbayiɗe épic ɗa épic ɗum ɗum notere nga par ce que épic nana en alana kim gammo ɓaɗaɓe ene nde kala advertaire tun mais alane nak foti ini jammayo ini jammayo alana jammayo ini fotede nakkaten kuucen ɗum mayo ɗaɗaɗerage ɗona mayo jiɗa ngana ceko dakar jawino ɗon ɗof kono nak cigui mbayiɗe épic nga mbayi ayc towoñ te ay may man inchallah kongo komni kuppi bon en ngana deɓet fois de final ɗa feere ko momoɓe foogana meli dañ liggeyde wona jandarmara amma hoɓe ɓennaɗo mo joffinal ñaneɗa sa ñetta bagage mi mbaraka dal yaaɓinagaɗa o final ona ko wa a okkadededeɓe dalakilnaba a comme regimo wonano ɓigiɗiɗigaɗaɗaɗa baɗa final arakiɗaɗagano wonan mina diwi abone jolɗa ɓe woji reedi final mais mbi kimo kokka kadi final te gaɗa yakarn ah ine ma doy waar ne moom mel ni wu sëg dem léegi jantal maara maa wede na wi ak maa se faj ba léegi ak jantal maara maa wede da mo tira ko problème na kili ba cha ma da bi nam ñu ko faj ci ci ki wala ko zaabi euh comme ni fo hatta de yalla da ben problème na bo ci na na na yu ni ni euh ko se xa jàmm bo se xa mu dit ndax euh abiri wananchi wa Tembezi Lake wanarera beban uniform lake ken min daranga wori jigi nduma adama daɗɗi ɓoyi ina hagana mi hollo ko ñama aduna roki ina hagana kirɓa rokko mbaɗi yakamte yakamte ɓeta ke rokko mais wori jigi am inem ay ware walal inem quoi léegi fay ñaan bi xamante ne boobu te baɗa liggéey waaw maya comme ni nene woon rek 미리 뭐뭐뭐 미 femenan hoso inere nan ta jinere nan ta ko woni ni ko be mi mani me ay kam na kala mo ta ji wala ay pa pa di ko woni lo o ni to yene sa ay man ri mani me ma ay be ino jom ko ka ko ko mu ko ni ne ke jane kon jete ma ra ra ay ino wa ko jete mo no yo yo yo na fa ala la sa eh a ro me to wala ba ay tan na man ma ro yare Jadi dia yang nonton sama dulu mana? wala na ye ko se se tamit. Wa may company ko rek ini kita ay telegu TikTok production. Menang nang di Kon ini ada konser pandang doomu a wasna wo gawɗi inde innagaɗo demi fabɓe on aduna ine wanna noono ɓe wewe e mais fahi ko haɓde am fo gëmɗine ko euh, gëm wima camɓe ini nani kerega innini gowol mais gëmmal ini gëm ngina hana mi kikinga ɓe wasina hana mi dimbali boɓinga te mi dimbali boɓinga mi dimbali boɓinga ta ko inaga mbayedi ba haadada bara heeɗa wamlosi am ɗo haadada bakuru baɗiɗe kono ini fiɗɗi kowi gëmanga ko ɗum fof rak ay télé rak ay sittinaagana cinna e ñimina ko hayɗo ɗum ñinaka holingo o muɗi ko ha windi ɓoyinagana holingo muɗi ɗiɗɗihana o question jam ɗiɗɗihana o question o rakrak ɗiɗɗihana o question hammam dow adama nene ñaane fof rak holinagana o hol muɗi hol muɗi ɓeyni ɓoji jamna inna nafa ɗoɗa ko hunanana léegi jontanemara a manke marak mu wala laal fiyaare wala laal amanke masgolomere wala fii question yeeraaka solo mama a <laughs> mosɗi nangu marque taw mana marque foyna miɗɗa marque ngede wena koye justa mbeɗa wanna comme foyi mbay a yaɓa a yaɓa a met fine met a ba hena ba wadada hake ba jase ɓuuɓi ba jase ɓuuɓe ɓaɓa marque marquina haɗaɗa ha distance ngomofe sénégal ndin maɗɗa woɗa ini ini jour ala besta o timmaliso ɓe jam to wonona haɗereja wonona haɗe listihare men ɗa listihare ɗa listiharewela mbay ɗo waɗama ko hayno oneɗa e kubbidiwinga o feeñ winni ka boy boy boy boy mañit akoma ke marsane sénégal france min namsuka wala o bana marsane o mbiyino ngene boynewoɓe tan mais boynewoɓe tan hey ko woni kihiƴi aɓe ɓegano ko dossier te marsane mo demeɗa ko wodini ko braki marsaji nagane asan place sangam mashi ne ko fon rek wala ne ni ikiyar na kwa kiyo sa su ba ba anga a kontinel ma nyala bo o namra ele fo mara bo inu patu pura kitu kumchi maviri da wala na ko ba anga inshallah ili na ngana bu ni na ku ka ka fa oy xamne nga bu ka bayri ni vip ni ma 15000 émission de rêve do da മെരേരെ ഇനി നാങ്കാണ് ബൈരെ വി ഐ പി മെരേരെ ബെനിറ്ററി നാങ്കാണ് ഇനി നാങ്കാണ് അല്ലിയെ മൈഞ്ഞ വല ഏനേരെ ഈ മൊറാലിലെ ലേക്ക് പോയി ബാക്കി എന്നെ മാഫ്ലോ മെയിൻ ഫാ പ്രമേത്ര നായരെ ഫുക്കു കട ഫിനി മെറാ ഖോ ഹാലിസ് ബിനി വറാ ഖോ ഹാലിസ് മുട്ടു മുട്ടി ജേസാസെ ഓരന ഫയർ മേ മേ ടെപാഷ ലാഞ്ഞാക്കെ മാഷാ ബോബി കൊണ്ടാനേര റാക്കി കസോ ബോബി ബോബി ദ mbokkaa ci ne jënd maara ay kono ɗo ko nde jaltanmara bobo an a hena holle hena ɓoɓe ɓoɓe wonana araki solon kurki araki ndenen kurki kadi setan hayat araki men moni amila araki bagasi ɗum men jewdi ko négociating ɗu panting ɗum meske kosati ñinti jabboting ɗu na boɓe winana bakozaay hayen dental mara ayi bona waɓe jotora hayati tigi met ko dental mara sa men den adana den bayni ya dental mara bu ko defee ngay dem scrutin question naa man dana leen doxee émission yi bu ko defee boo jéem ko lotire émission yi bu nga di gentleman a yewan guzaabi na nemetan ci bu azuti bi zone e ba yewan waaw comme ni ko wax raak raak eh, eh, eh, gëm-gëm tamit baat déglu ko ay ay naan addu ba nekk di mm-hmm. fu addu addu ndax ina dik dafay kere mais foog mu muñee am ñi muñ saa bi wona doomu adama tamit fa ñaaye di ñaar baat déglu ko ay naan ay pédé daane mm-hmm. ay du ina ndax nga no yóbbu di fe du ina ndax nga no yóbbu ndax foofu may na caractère fulla rek weddi nga fi yemale fi nana faafanko leydi se tan ko jahanay inen mbeɗe hewan mbina hana ɓeɗɗigu zoni inin hewan saben saben ina hana wallu mairie ngu président monsieur le maire ade ko muɗu jon nanamede worakga saabi saaben saji o miski ay min go pulen kirisina hana mbuyinga e amo hobci gedemde am ndegduk a bande ndegduk Kailangan na kawano yari ay folle yari alangin yari alangin a abad na mibikir be folle amara fini na ngado be saami ne kado fikira amara fini na ngado be miri ne kado fikira dudun ci na ngado wadi liggey bi na ngado bara je liggey amara a amusan bara liggey na ngado bara information a tutunga a fo ha ha information fa investir dafa investir mbo do adam investir mbo mm-hmm. investir zonezela sabe ngina na sabe ko sabe bi ta sin flora min ko min ko be min hartu mit ba legi fay ñaan na saben wa ini ñaan na saben saben adu fikira ko tum mamasum sosi ga boni na ngala wali ya saben na ayah kat ndax mo ra reality ndax ndax mo ko to kay ñox wala ay ay ɓeɗo haɓogo kañi haɓogo ɗera waran zaɓe men waran ɗi gurti ɗimoji kono sawi wini ngo amuraga bogo kondanega torop walla min nangana no wiya amadou zaɓe ka fifirana owi remercienega mbawa bo ko dane leydi e mbate question yom ka koɓena waddana ko min gonono question ha leydi ma côté annamay nammayɗe lolo hamnani nini nem leydi paɗeɗe ke fo halaɗe ɗe 워머나 하나님 마와레는 마좀 드리는 거지. 뭐냐 저 vraiment fit occasion na na occasion na mo din. Proprio to limit euh on est na na fala ki yaina. Na on est na na babi fes wala diwi fes euh ki mo ngir moy ju. Mm-hmm. Dara rax ne lu lu moy ju. On est na na diru wala babu. Mm-hmm. Euh futu koy bada. ko hoyɗere seydane ɓayña rara ngeremu woyjur baɓɓo abbumo fof e ñande so ɓumuntike cekkene inde ngo o tef weddigala fat baɓɓo no meksani ɗiɗego rara tikkina halan degeɗi ndem waɗde sa o mairie ngo ina halano willayi sabu fini mane nanno fini mane ngaso e taxde inde ina halana miiɗa maanaam sakisikinagala weɗimoɓano istemoɗeɗamaoɗeɗotaɓe lutayatatatata mi ma préféré préféré ɓe ɗanni jour vendredi kakan ziare o hatatatat ma matume oh, wala jour inahgana hamunanane ma giɗiɗiga ina inahgana wori ɗo inahgana mina demoɗa miyaɓeɗa wona inahgana damit fona demo a pesenɗa meni wiyama ko wala demo pesenɗa meni pesenɗa kujira kana ndio pale kwa haba daraja la bi Ousmane Ndour bi kontaan na tamit jaabi woon na gentleman social yàlla la yàlla yokk mën-mën bi peut être l'homme social. maya doomu adama wala ni na faraki ngalaka barzuf ngalaka dem fe bidi wa dabas bo haye tizo so so da ala zani sa fe bo ina na be yo ma be da maana kimbi ko wax rafi min kana bo ay futiso ko sohlene ngata deeda yalla ko ko ene habida rek mo pat ndol mo ci nangala be nan dole ma ay doye dépasse wallahi alazim ma ay doye dépasse bo ay na zohlene maya ngene boyo ngo alina mo zaka ko sa bidi lo alhamdulillah dara men bo ina ngana de ak de was ay bo ina ngana de ak mu nyezo ay tuman tuman tuman vraiment ngana di wirning de jërëjëf léegi boo leen dem boo weyoon jaabi laaj bi yoo xamante ne ba di posé question mais c'est question ci ba idi envoyé mais ak nag boo jaajëfal ba léegi tom comme que ba posé question par na ma taxaw si suuf léegi bu defee mu weyoon na gentleman amal na na bi tooñ na merci tooñ na senti tooñ na kilifa ci tooñ al kenn na na waaw comme ñu li foofu rek ñu ne la weer tooñ hoɗiɗo ndumaano ɗemgal fu meɗen hay fo bes fulle ƴettuɗo suutuɗe ɗumen ine marati woniɗattoɓe cikiki jeen wonan min gi kofgal aɗo noon cikiɗa wala sabenna cirfoɗe ma ɗeɗeɗa en ɓimatto yay ba yay cingo ɓimatto yaka ba yay yaka ba ɗumma ba grand frère koko amazoni toon ɓoƴƴinakane ɓe gen ɓe ɗicci ciki kala exemple haalan ɓe zeydou ɓe mbaysis ɓe arbiɗi ɓe ma ɓe paus ɓe art ɓe usine ɓe jaabingo ɓe muskira exemple nagata ɗe kaka ɗo ore ɓe sal ɓe jii yaaɓe mba jaabingo fo cikire min ha peso ena ɓuuɗaɗa ɓe nur voilà léegi wattagana meɗe ɗoɗo benna koɓe léegi abof bof ara kene sok abdourahmane jon léegi feɓe ñanan waaw fokoɓe abdourahmane vraiment ɓoyinagana xam nga cam musique Imacambe bukuny mamemes ato wax dëgg yàlla dëgg lu ndi nakaana ayda wena cantal ini cantal ini a bo ni nakaana fi ci bo ni nakaana ke gena sawen fi ñaanide ndax dikki bu inangaana bo waaye bu gëmi xaf ci tamit arat na kenn xam yàlla jamono ni ɓuri koɓe bo ci bawaɗɗe bo baayi bawaɗɗe bo baali ɗum doole nga bawaɗɗe bo inangaana tamit fowaɗka fifiti ɓe ata wasanda wa gawiɗi ininagaɗa ɓe taxa dagasiɗa de koox ini taxa dagasiɗa de koox ini taxa dagasiɗa de aina kono ɓata sanang nenen yene sai ko dagasiɗa bo ɓe ɓeɗina hote ko aina ina wara yene sai mbi anduɓe ɓe yeneen saa yi yan xoxo ba xoxo saa yi mais nee na après police da dañu di gis seen beneen a macha allah léegi nag jaay posé question keeji. ñaata couple la jël. ak lu mu nar ak ay secteurs ci saison bi. waaw ñaata couple la jël wax dëgg si yàlla. ñu ngi bay couple. mi ngi laa kenn. tonton yi di ngaam mi mi mi prévito nga ñëwee au bagage. ci ay ay napp doy ca. ñu ngi bay couple wax dëgg si min nalakitin ini ngar no towoñ towoñ mekku kiimi ama kiimi ko yalgaran ina nana visé dan émission ne da fo comprendre rof ina nana gen wara min tumna voilà léegi pay ko fenn ba may ko kan ko kan kan na sakis ki mais mais bay kan ko kan may bay ay ndofu sakis kan ko kan may bay ndofu ko mi la la bu fenal ni winore na kule azam mais wax dëgg yàlla woyis nga bay kubbi na rek naa na ñu ngi liggéey na ci ci ci ay fuji ci daga na pour rak rak sede ci ci ci bi ci daga na na dan ci daga na ko sam sam bi ko bi wala e bi di di waaye se may ñaa di waaye se yi no euh, ci ci ngay se ci di pulé waaye se dina waaye se ba waaye se ka euh yo haïtien cinq ans VASC 6 ans, VASC 7 ans, VASC 8 ans, VASC 9 ans, VASC 10 ans, VASC 11 ans, VASC 12, VASC 13, VASC 14 ans, VASC 15 ans, VASC 16, VASC 17 ans. 17 ASC. Cina halala da bila kira halala bagi itu, cina halala bisa, cina halala ASC itu punya sama aja, sama pengibad, tuh itu itu. place tàngam benn feeraan nga comme raa ngee ini yim IC cumbi ay vingt IC cumbi ndax bodi ɓe ɗo wonana nayta ko adelula teral nga wallahi lazim ɗi ɗum ndax ngana zuneri marange masmine ɗo wona wenna mas wi fayndi liga ak jaare e ɓe ɓiɓɓi kuɗɗa jamarak masangeeɗo bowotoy kay wala ora isonoɓe no jaaro sankara fayinaɗi ɗe awona i kontaan lool ndax bo yebaan ba i ñaane tamit vraiment i ñaane ñaaniraan lool keej bu ko defee bo wene émission no yeme dem bo be kontaan bo be jen kontaan sa saben kontaan ko yamne de ko yemar tuuti question ci bo posé ci na bo tuumi nga ci da bo be tamit ni nga to tuumi da bo be jéggal le ndax matti voilà boo xëyee boo tàggatoo na boobi boo wéy na en bon entendeur salut tout léegi fay booy ñaan fay ñaan yi encore une fois askan surtout comme ci nga xamante ne aduna ɗo doywa leyi ɗeke poɗo kerena diwo kuut ɗeke poɗo kerena diwo a kuut foy ɓe ñandire parole ɓo tax ɗo no wowi comme joni fo na reyi na reyi na reyi na ɓe ñananta wa re re ɓuɓi kimo re INEFOS wàllu njabooti wàllu jeune bu neexi ñaan mu gën a xanaa bu baax kugoci wodi legat ma wasanakala ɓe wasikindi ndax gmmi ɗigaɓo kikim omi kaɗin kuuji ndax bo bomi miskadi naaf mene kuuji ɓami yom naaf walla kuɓo bo dikni waasi rek ɗa kim amin mucc rak dini adu rek ɗa a pour pour muƴ oye yooɓe tax wona kuuji ngo mi mikim ko yara kungana are as école ta ñani ɓeke internal école ci nangan ci école baax ne baax ma investir en ɓuɓu jingo gam ya investir ɓuɓu jida ay affaire agression ay affaire yahya ko mbiɗa dimmalen gaɗa jërëjëf to ɓoyna émission o yeminam ɓowre merci ɓowi hamna ko benenen on inchallah keɓe mi ɗaɗɗaga tamen waɗi kamarna président zoli ngotan ke mansour dione kimnanani dabo o ɓe wi remercie jaaji jenna barkeb sayqi faddilu mi buru ay maqaam yàllaw bisimil